Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici quelques flashs d'informations à la présentation signée Cheikh Oussafo. Euh, restons dans la banlieue à Keur Massar, plus précisément euh, sur l'autoroute à péage. Des bandits de grand chemin sèment la zizanie, la terreur. Euh, ils ont été hier interpellés, par le commissariat de cette localité. Armés de gourdins et de coupe-coupe, euh, ces voyous euh, continuer à sillonner certaines artères de Kermassar et aux environs. Parlons de la situation à Diohine, c'est au nord c'est dans le village de Fatick. Euh, c'est maintenant la stabilité et la paix, qui est revenue sur le lieu. Euh, le grand imam de cette localité, Cheikh Ndigal Sène, a ordonné des instructions claires et précises que la paix reviendra euh, dans ce village. Il a finalement renvoyer son fils du village qui était à l'origine de tous ces troubles euh, qui avaient opposé musulmans et chrétiens dans cette localité. Évitons euh, ces genres de situations dans un pays de paix comme le Sénégal. Parlons euh, toujours de cette appel internationale. L'hôpital de Pékin euh, traverse des moments difficiles. ils ont tenu hier pour déverser le mécontentement l'hôpital qui est malade du tout, il n'y a plus de médicaments, il n'y a pas de matériel. Ils ont demandé au gouvernement de prendre responsabilité avant que la situation se dégrade. Le système euh, éducatif va bientôt changer. Selon cette hier par les responsables du ministère de l'Éducation nationale, l'anticipé euh, de, la philosophie euh, sera finalement euh, levé pour la philosophie va rejoindre toutes, euh, disons, les séries euh, des matières générales à FMIR responsable du ministère de l'Éducation nationale pour éviter des truchements au niveau des examens. Paul nous euh, l'ancien directeur général du groupe Jeune Afrique, Béchi Beniafet, ce grand journaliste panafricain, est décédé à Paris à l'âge de 93 Enfin, nous nous rendrons euh, en Centrafrique. L'armée russe a été pointée du doigt. Une armée euh, qui est en train de massacrer, tuer, euh, de tuer des, des, des, innocents dans cette localité. Assalamu alaikum mbokk yi ñu tënk si kàllaama Kocc euh, Barma dañuy doxantu fële ca village bu Dioy nekk fële ca Fatick xam ngeen ni fitna yeewal fan yële passé ki nga xam nag mooy euh, Cheikh Ndigal Sène di bàyyi eh, ki nga xam moom mooy Birane Sène ki nga xam ne ko doon tuumal da doon eh, indi fitna diggante moom ak chrétien yi eh, mën nañu wax nag jàmm dellu si na si bërëb boobu ginnaaw am fa doxe ay jéego yu am solo fële ci Parcelles Assainies sagar yi doon xel diggante way fipp yi ak askan bi jot nañ fa teg loxo fukki aadama ak fukki aadama ak ñaari fukki aadama fukki aadama ak ñaar ñoom ñoo def ñaaw teef yooyu ay ay ngànnaay ay arme ay kurkur di teg nañ fi ne naan seen i portable di leen euh, buntu xatal euh, li jëm si mbirum euh, éducation anticipée au baccalauréat mooy mooy matière de philosophie bi ñu doon faral di def dañ ko war a teggi ki ka nag ki ka wax nag mooy responsable yoo xam ne yow si ministère éducation nationale philosophie boobu dafay dellu si biir matière yu bëri si biir matière yooyu pour mën Euh, moytu yenn ay tricher si biir examen yi mbokk yi ñuy doxantu fële ca bitim réew xam ngeen ni armée dañ ko joxoon tay ay ay tuuma yu métti métti ñu guddal bundu xatal ak euh, askanu Centrafrique leen noor leen faaj di sàkku xale jigéen ñi foofu ambassadeur bu russe na fii ci Centrafrique moom nag weddi na euh, tuuma yooyu ñu ngi yàq seen i dara mbokk yi ñu ko tëjee fële ca Tchad gouvernement ñoom. Euh, notion de transition yi nga xam nag Mahamad Dibi tëral na am na ay jéego yu am solo ay mën a kujjee xam ne yow si opposition bi ñoom nag euh, ñu bari euh, dañuy naan gouvernement boo xam nag dafa dëppoo ak yoon yeneen xibaar mbokk yi leen gërëm leen sant ba ëllëg incha allah.